tuñ orange naanatuñ orange ndax orange seddo da ngay am sa 200 war ko jëndee boisson orange naan wala nga xoolee ko orange nga jëndee ko seddo waxe ko nit ñi amatuñ Ecobank compte ndax Tigo da ngay am Tigo daal bu la Ecobank bu la am sa 200 war koo jëndee euh, dem yóbbu 10 000 war koo def ci compte nga jëndee ko carte crédit Tigo nit ñi naanatu naanatuñ boisson amatuñ compte ACEP ndax kirin ACEP daa vert kirin ACEP euh, kirin vert kirin vert day am sa 200 10 000 war koo yóbbu compte ASEP nga jënde ko carte crédit portable yàq na koom-koomu adama da nga am sa ko portable 2 mois boo ko doon jaay 8 000 doo ko ci man 96 laa am portable depuis Genova waaye li yàq koom-koomu monde bi mooy portable waaw portable moo yàq koom-koom 200 nga war koo naanee boisson nga waxe ko orange kenn naanatul orange kenn lekkatul orange nattu dal nañu bona seera 哼哼，哎